os musiba am loolu célibataire sa jabar néewu fi wala tànk yi xar mu ñibbisi nga ñorib dara bam day musiba moom dan dana la dal moom nag saw pour la moom war naa gaaw ñibbisi lool waaye ah, mag mag mag mag du dar waay du yàgg ci ci célibataire Eh, eh, eh, taxawal Penda taxawal ta kay taxawal nii taxawal nii ah Penda Gueye Penda dañ la xam ne la man sama kër gi moom baar la wala sama kër gi këru caga la wala kër gi ku neex dugg ah Penda juruma la waaye sa jabar la sa sama jabar lañ la jox am naa ay responsable ci yow. boobu ah, nga waroon a maandu ci man. pend da nga may déglu ah du ma yorob caga ci kër. caga da ngay mën a régler ci kër gi mënoo ko nga delluwaat sa kër bàyyi. bu sama jabar ñibbisee ci kër gi danaa ko wax lu leer. ma fi indi de delloo ma. léegi sax man xam naa li may def. comme nanguwoo maa déggal lu ma wax nga sànni sa ñaari fari laay dajale. Eh? kenn ki fekk na ma ci biir nee na mooy rëgëj mooy mooy samp rek. keneen ki nee na moom moo yor sa financement ah da nga yor sa social yow. social nga yor sa natt kii ngay mbaraan di jox kii kii di dóor. ah déglu ma. Ah, man déglu ma déglu rek yow. ay eh, fenn xamoo bi baa bi. doo dégg. cagaapa dëgg la. waaw boobu nga waroon a déglu. maa la gën a nekk ca gàmm rek ñii li ma leen def ba ñuy dugg ko génn kay bu la neexee mën naa la cee ñam. kan ak kooku koo koy def. yow mi ah day gaaw wax day teel di gaaw. ñu xam fa nga jëm ngay rëpp rëpp nii. non déglu nag ma wax la. Ah, waaw. sama nekku fi. dem na tukki na bu dee jàmm. waaw ba ñëw ma massage la lu neex. koy massage nag yow mi ah tam wala bëggoo loolu. Ah, kon lee danga koy bàyyi. ñoom ñoom bu leen non moo ñooñu di doome la. wax ji du mën a nekk ñee am bàyyi leen ah, loolu laaj. ba guddi. ah suba na tey wuy ma. guddi anam ko def suba. wuy ma tey suba man waaw man ne nañ ko def ba cëgg. waaw maa ngi yow dong ci kër oh. man man man maa ngi su yeeg gone bi gëj naa ko def wa sama nay waay yàlla na suba gaaw jot suba cuuy na jot xaaral ma daw wuti kaw por proteg lay wuti kaw kàppoot su biiree bi fóot moom fóot moom ah. fóot dama ka moom moom léegi moom. yow kay macha allah. ah saa de. ah ma di jamal yële bi def si pëlum yële bi. ma jam yële yi def si def fee après daal yaa wee. ah. suñ paree. waaw nit ñi nag wala mu a yi bële wuti. lii lii bële waaw waaw ba kay ba kay mutti nag xool xool da ngaa wul fayeku lu sell. waaw baax na. 3000 baax na de. léegi que amoo bu léegi 3000 la fay. waaw man la may fay. mbaax boo doon yoon nay da nga war di fay pourkër yi lu jaar nga foo ko fëkkat. waaw fëkkat nekkul jaam. waaw loolu dañ kaa war a xam. dëgg la war di fay pourkër yi. jamono yële bi def si problème yële bi. moom mooy jamono yële bi def si deuxième bi. waaw non tegu vraiment leen di. foofu yéen a ngi ci taw. waaw yéen dama koo fàtte woon ci foñ la bokk. ah garaawul tegal nii. eh eh eh eh Faye. boobu yow foog foog garaawul yow mati. ay ay Faye ma wax nga amu fi eh Faye Faye xool xool xoolal yow yaa soxla xool. ñaam ku tegal lii. waaw waaw ma nekk. saay saay xool xool ñu ñu ñu fii fii fii fokkari di nekkul ay jàmm ok saa fokkari yi da ngeen yaakaar ñu fokkari ay ay doomu mbaam lañ wala ay doomu fas day leen naan ñu. amul lu may wax ak yow. dama la ma yoonu góor ci fóot. kee laa amal wax moom laa jox sama xaalis moom laay fay moom may fóotal moom laa amal wax amul lu may wax ak yow. ñaam ko yow yow da nga yembale. foofu ma ko yembale. te xo xolo xolo akay ay ñaar ñaar ni nga gis fii ñuy fóot bari na mooy mooy ñooy fóot wala moom kese mooy fóot yaa ngi fóot am ah, ah, sama xaalis moom laa yow ngeen di fóot waaw waaw lépp ngeen di ba mu set yow yow yaa ngi ngeen di fóot ba mu set. yéen yéen yéen yéen da ngeen a war a legle yéen. dama ne lépp ngeen di fóot waay waay suñu jàmm nga ay yëpp fóot ci fóot. waay yow am ah, nga yoonu góor ci fóot maa tey fóot. yow dama nga liggéey moo gën nga. waaw lii lii liggéey kii liggéey la de. waaw waaw waaw liggéey liggéey li waaw kii kii soxal yow yow fetaane nga rek. yow yow yow beneen lagal nga yow da ngaa tafe. gën dara xool si dara gi nga gën ni da ngay am da ngay am sabab bii bi sa bopp la fekkee sa bopp nekk fóotkat nekk taxu nga nekk jàmm. dëgg la ah ok. mais eh, mais garaawul. yéen yi mu fiy doon dafa bëri kii waru waru fi woon a indiwaat ay yéen trois mille lañ waxante ëmb bi wala doole ay yële fekkee yow yaakaar ne foo koy ay jàmm foo koy ay nit njaay lañ ay ay nit yu ay nit yu am responsable lañ yor seen njaboot di fóot di sellal seen njaboot. waaw fóotal wax ji jëm. waaw fóot waaw fóotuma nga xam ay fóotal. fii fii lépp lépp waaw maa ngi sama jàmm ma gedd naa fóot mi sax nga xam ma. xamal na du ma la fay dara nag dégg sa xaalis sa xaalis sa xaalis ko ni da ngay am da ngay am pour la gol xool xo xo gol dégg ma fii. dégg ma nag kon soo amee dignité ah sa sa sa sa saa yoo ñàkkee na ko sa poos di yëg waaye sa jëmm ji mu ngi ko yëg nii da ngay am fulla sa bopp waaye gol boo xamante ne soo amul xaalis rek jaay sa ngol loolu dara jaru ko man dama am sama fulla fa may dee nekk foo kat nekk taxu nga nekk jaam. waaye soo demee du ma la fay na xamal loolu léegi. waaw kay waaye bu ma fay. jërëjëf la doon waaw pour sama kóol mi man bañ cee déglu